muy daara oustaz Mouhamad Ciss Landu waaye seen mbokk oustaz Ousseynou Ciss moo nekk ci waxukaay bi gannaaw nuyo tey ñu indi leen lu ñuy tuddee ak tarbiya wa taalim euh, ñu gën ko xamee ci éducation niveau la ak dimension boo xam ne jàngkat jàngalekat bi war na ko am